booy bi jàpp ma respecté wu ma. ndey géey respecté wu ma fii dañ fi lu ne mbéj ngeen ma dóor ngeen ma non ma wax te te c'est la jour de la bàyyi ma bàyyi. Ah, waaye ah? ayo moo ayo eh, eh, eh, lii ngay teeru jee monsieur Dia. Ah, monsieur Dia. waaw waaw waaw waaw oh. ban monsieur Dia. ah sama sama waaj mm-hmm. monsieur Diallo tudd mais bébé waaw mais fii nga mel ni dafa neex fii mooy Kaafour yow man bi ma ñëwee ba léegi mm. maa ngi soog a lekk lu ma neex ah gis nga seen affaire dafa neex de xaw naa réer nag parce que dama gis ñu bind fi Ka Market waaw ah, parce que dafa am supermarché moo tax ok macha allah moo tax ma indi la fi ah neex seen yu baax baax moo tax ma indi la fi seen affaire yu neex man daal sa tàmbali gii <laughs> neex na ba jaaxal. lii lancement la rek nag film bi ñëwagul. nga ni ma <laughs> waaw waaw. <laughs> gis nga boobu nag. Hmm. yàkkamti naa ko ba bala may ñibbi dama lay takk. sérieux. maa la wax lii. bilaay. ah yow tamit nag. caaxaanoo benn yoon. tamit nag ndur naa la fi caaxaan. ah kon loolu neex na. du ñibbi jëlee fi ba sax dafa wóorul. bala may ñibbi dama lay takk. du ma ci yem. naa la jox 5 million ay yére nga ciy jënd. ay waay yaa xam ay parfum nga ci jënd yow daal waajalal sa bopp. ah loolu neex na di. ak la nag. naa la ubbil magasin. man nag jàppari bi laa bëgg. lu la neex rek. jàppari parce que ñëpp fa lañ ma xam. yow daal boo bëggee moo ubbil la bu bees Sadiya des jàppari boo bëggee ah. ma bàyyi da jàppari bi parce que ñëpp fa lañ ma xamee. waaw baax na waaw ndax ñeme nga boobu coow. amul benn problème. dégg naa coow bi gën a garaaw jàppal ni bala ma ñibbi naa teg lii ma la dig yëpp naa la ko jox soobee yàlla. ah sama bopp. ok jàmm la bëgg ki daal doon wax fii mooy Kaafut gis nga ko nii. Daafour mi ngi nii dafa neex fii xoolal da ngay xàppi xoolal teet. waaw fii ñu bind K market. moo yow gis nga yow nag gis nga yow yow gis nga yow nag xam nga yow jàngoo. lii ñoom dana am supermarché ñoom dañ ciy jaay lépp ay liquide lépp lépp lépp lépp liñ fiy jaay fii ñoom seen supermarché waaye nga naan jàngoo lii ma mën a lire bu baax a baax ah yow kon yow gisoo légume bi yooyu te pañe ga pañe gi ñu teg fii laa doon wax fii fii waaw waaw ah. xoolal kii rek. kan. kii fu mu yëgee borom doo ko dee. kii rek comme Youssou mu du moom de. am di kii. yow moom kon yow wéru keenee du moom de yow wuy ma xoolal am na yeneen affaire yu ma war a def saa yu ñu ñëwal dama le. xanaa néew ma ñu lu neex a ñu jaay. dañ ñu dañ dem ñëwaat affaire la monsieur bi sëñ bi na nga def waay. maa ngi fi maa ngi fi. Ah, ça va bien. alhamdulilah yaa ngi ci jàmm. bien merci. ça suma Sade laa fi fekk ko ah, ak sama employé la. d'accord. man maay Dia Paris. sama employé maa ko Yeah, ça va. sama ñëw bi la ah, am ñëw. Ah. ok ok ok. na la kaa ko moroom fay. ah. ok. waaw c'est ça. ñu ñaata la. à trente millions monsieur Sène. ah ok. père sa ñëw bi pare nga tey. ndey xaaral. ndey xaaral. yow dafa des bii bii dafa des omb. omb non bi pare woon na. tuuti bi pareegul dafa des omb. dégg nga des pare la. pareegul dafa des omb dafa des omb. ja waaw ja d'habitude fii laa daan ñëwee. génne. dëgg la dëgg la su ma seen su ma solo ñu kontaan su ma yëngatee ñu respecté ma ko. dëgg la tey mënul ni quoi. dëgg la nan mu des omb tey. non xam nga bi moo demoon. ñu jàppoon ni demoon fii kii bi feebaroon est-ce que comprendre la léegi nag comme bii pare na yow léegi amoo foo jëm ni dans quinze minutes trente nga ñëwaat jël ko ñu ombal la ko léegi nii dans quinze minutes trente. damay dem vite le temps mën a tourner kanam bari. exactement léegi léegi kon wol ma téer bi léegi nii rapidement moom mu jël ko euh, yóbbu ko léegi waaw naa ko wóolu maa ngi jégalu de léegi nii rek balaa xool bu la neexee sax boo gaaree nii rek klaxon rek mu génn dégg nga incha allah maa ngi jégalu bu wér. ça va. la classe, l'élégance et le raffinement, y a pas mieux que Diapari. Une boutique de Paris dans la ville de Dakar. Est-ce possible? Bien sûr, c'est possible avec Diapari. Ne vous le faites pas raconter, mes chers. Venez visiter notre structure, qui est composée d'une grande parfumerie. Et eh oui, des parfums de classe pour hommes et pour femmes. Tout pour un bien-être Nous avons des bazins Getzner qui peuvent être confectionnés sur place, évidemment par nos propres tailleurs, dans notre atelier de couture, des prêt-à-porter, et même pour les enfants, nous avons une bombinerie pour servir vos petits bouts de chou. Alors, qu'attendez-vous Je vous donne rendez-vous au 5 avenue Cher Ahmadou Bamba, à côté de la clinique Rabi. Le numéro de téléphone 00221 33 824

k un concept novateur de supermarché créé par des Sénégalais pour faciliter la vie des Sénégalais. K-Market propose des offres exceptionnelles de produits de qualité à travers des packs de ravitaillement réunissant tout le nécessaire en fruits et légumes, mais aussi en viande et produits de la mer.